subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimu al-hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli kon ñu ngi war a tàmbalee ci ka ama ni ki aji gumba def naa démb ñu ngi yemoon ci wa in bila saajin wala ahilatin li si sanaatin taqum bihi wa qadara alal mashi fa lañ taxawoon démb ci la ñu dee nag mu ne ni ki gumba boo xam ne am na ko yóbbu mu ne ka ama ni aju gumba joo xam ne bi xaayidin am na aju yoomat ko yóbbu ko kon na dem màkkatal mukarama di dem màkkatal mukarama bi xaayidin donte donte day fay sax nag ñu yóbbu ko na na fay te fay ga jàggiwut dalo wa illa ndem nga xam ne mënta yegg ci lu yóbbal ak waruwaay kon oxtu ba da xalameef almaajuus anhu kuñ lottu la walit ko ano min xumaa ñoom ñaar kon jàpp na ñoom ñaar lottu nañu gannaaw mu muñu dem amuñ lu leen yóbbu amuñ pexe kon jàpp na lottu nañu dégg nga ku lottu nag ak ñàkk waru ko ne na wa imbi samani wala di sinan donte nga xam ne la muy demee màkka dafa nekk njëgu doomu njaalo te dem donte jàppandiku yegg màkk ga ci lu benn coono bu mag a mag a mag xam nga loolu waxoon asumat dañ loolu jàngoon démb bu fekkee loola mën na nekk ci dépensé njëgu doomu njaalo man dafa am jaamam boo xam ne am dafa am jébéeram jébéeram ba mooy yàlla ëmb ca jaay ko demee ca màkk islam nangu ko du amul lënt lënt mukk te njugu ba te bàkkaaru njaalo ga ku def la war wa imbi samani wala di sinan donte dafa nekk njugu doomu njaalo boo xam ne jébéeram moo njaaloo xam nga moom jàmm bi moom doom ji mu ngi mel ni borom fas wi ak doomu fas wi rek bu ko neexee jaay ndey ji bu ko neexee jaay fas wi noonu la mel mu ni aw ma yubaon ولا لو خن ديس كوي جاي هذا مفلس تكون جزير كون جزير لا نيو جاي تي موم موي لب لو خن ماتريال لا كوي جاي فاي بوريا نكون لب لو خن امنا كو اي ماتريال تا بو جزير دنج كوي جاي فاي بوريا نكو جاي غير دم او ما يباعو هذا المفلس mu ne aw bi iftiqaari yi wala ci ñàkkam day wala sax bu passé dem màkka du am dara te mujj nekk faqir jar na ko aw tarki wala di yii wala bàyyi doomam di sadaqati muy dem di sadaqo ji bu demee màkka jaay li am yëpp doom de sadaqo ji jar na ko fu nekk mooy nekk bu ñu dafa war a gaaw a dem ci koo xam ne dañoo war dafa war a gaaw a dem waaye ne in lam yax sa nim ragalul xalaakan alkandik doom ji bu ragaleen de ale ko jaru ko nag dégg nga moom mooy xale ko moom wala képp xam dundam war na ko dundam war ko mu ko gannaaw kooku dina ko kon du ko jar waaye nag mu ne laa du war de moom dem Makka koo xam ne mën na dem Makka beneen day ci bor mukk doonte doom a koy lebal sax nag jaru ko gannaaw bu ko doom ji lebalee du am lu mu fayee jaru ko doonte doom a koy lebal kon aj ga màkka dañ ko sib wala dafa am sax laa bi day mu ne aw atiyatin wala may ama may la nga dem màkk te duur yaa laaj am sa tax dem te laajoo ko bu nga xam ni daf ko ne dama lay jox nga dem mak pass mak lay jox billet mak bo nangul dem mak duma la ko jox ci la ci la ci la ci la may ga boné parce que fay doy war xam nga li gëna a ci alal yi bok na liñ la may lo don hein ah, lo ñak bu def bu ne bu la mayé pass nga dem mak du wër de nga bi wala may ah du war dem mak alalu may du du ca waree day fekk nga xam ne da am nu muy demee mooy billet màkk bii añ màkk doo nga ko tax a jóg passe màkk baa ngi nii 4 millions passe ak yóbbal bu dee bu ma la ko joxee nga dem ba jox la ko bu fekkee doo dem du ma la ko jox delloo ko xaalisam ba sa ngi senn sa jabar amul lal boo reer doo ndékki ñu joxul 3 4 ba demul ba demul ma jël ko ne ko jëlal bu dee def ngir yàlla dong ah am na lu mën a wutu kaala màkk te du yoonu màkk am ñoo xam ne dimbali leen dimbali leen jaamu yàlla la ku amul dépense amul fu fanaan amul jur gu mu liggéeyee amul machine bu mu liggéeyee walla mu borom métier la amul outil yu mu amul atelier amul machine bu mu ñëwee tailleur la nga am alal ju lu jeex ne ko dem màkk boo dem màkk ma jël ko ne leen ne jëlal sa xaalis dem ak ñëw dépense jaru ko yàlla tegul la ko waa tiyatin jaru ko bu fekkee ko jox mu laqan nag mu lakkan ne leen am rek ah jëlal jëlal mhm. kon macha kon fi muy ñàkk waree ba nag beneen solution ko ak boo xasee ba jël moom forcé nga dem moom boo xasee ba jël moom dem Makka war na la kenn forcé wul la yaa ko jël kon dem Makka day war boo xasee ba jël moom am nga paas am nga yóbbal war na waaye bu la neexee ko jël waaye boo xasee moom dem Makka gi day war moom mhm. ba di nga wax bi aw su aalin ولا لي خن موي لاج دي ديم مطلقا تي نك كو خن يونو مكام بي يل وا رك تي لوكاي ماني ها دي مكورك مطلقا دي نغخ بي خم لي مطلقا بي موكم تام نا يلوان ولا تامورك دي مكورك بوغي نخي ديف كو نك اورو كو خم غورو لو بوكو لو دوكو ديف bu ko neexee def ko waaye ko bu ko neexee def ko waaye waru ko ñu waxtu bi la eh, xale mi yëf na nag ci kattan ba ci kattan ba ma yuraddu luy delloo si bii ci moom kattan dem mag dañu jàpp dem nga ak ñëw gi yëpp ci bokk dem mën a dem ci jàmm ak salaam ak loo dundee ak wér ñu jàmm ak salaam lu dundee wér gu yaram fa nga dëkk wala foo xam ne mën nga fa dund waxtu bi vraiment yuraddu bihi in xas yéen dem ragal leef na dem ragal na kay dayaan cànkute dégg nga bëgg leen cànkute nee na wal baxaru géej nag kal barde comme jéeri ji la ci yoonu màkk ci war a tukki dem koo xam ne dem màkk yonam wi géej la ci la mën jaar bato la makki dug abi avion wal baru wal bahru kal bari mune a ah, ila ni xale bi nara mën noonu nag ga mu noon xaata al kanem ga ñaar ku fa jaar rek lab ku fa jaar rek lab min ni bal bi la kenn du fa jaar kon na toog eh, loru ca mo gëna bari mu ci ca kon na tok mu ne aw yu day yaa wala muy sànq moom kay dem màkk muy sànq mooy rukkoo de salaatin benn ponk julli benn ponk julli sujjot wala rukkoo na toog wax julli de ponk julli benn ponk julli bu ko nar a sànq ci yoonu màkkam bi na toog ah ni lu ko waral nag mooy li ko may jëm du mel ni que def yore jàngoro yu miir bu ko ñëwee du mën julli na toog dafa jàngoro yi miir wala tension li ko may din kon na toog wala ma tu jigéen nag yooyu aji màkk kala juli ni ko góor la jigéen ju war a màkk comme góor la mhm. koo xam ne bu di jaaree géej gi ñi ndox mën na miir am na ñoo xam ne bu ñu duggee oto commencé wàccu mu neex a dégg am ñoo xam ngi duggee oto commencé wëcc bu dee bu duggee ci avion bi am problème du tam jàmm du mën julli na toog ba tani bu géejum noonu la na toog ba tani ne wal maratu jigéen nag wal maratu kar rajuli kom góor la mu ne illaa fi ba'idil masjid du mooy ci dox bu soree soree sori kon du ma ko góor doom kon dañu sim ndab sax dañ koy sib dégg nga bi de donte mën na ko sim nañ ko na toog ruko bi bahrin ak war geej tay war geej sim nañ ci ndox yi mu dugg ci bu ndox lo sim nañ ko mu dugg ci geej mu ne ala ila an tuqtas ndar jagle def ko mom jigen ja wala ci góor ma kan ci place man place boppam ci spécial ci galga kon baax ko kon ma nga nekk dégg di wa siadati mahramin ak bol ko xani ko lan man amante la jam lenqe wala bayam wala yu non kon dana dagan dégg nga kon dina dagan mhm. salaamaaleykum maa ngi maa ngi maa ngi dartu bi xaaral dix minutes nga ma dix minutes rek dégg nga ne wasaxa fii la ñëwee nag wér na moom añ màkka déedéet fële la li nga xam ne ko almante aw soo jëm wala jëkkër laa ñeel ko pour mu ànd ak jëkkëram mu ne ko rufqatin ni kii mbooloo moo xam ne umi na wolof na ko du fàttante mu nekk farata nag mooy lan commission bi ah commission bi mooy commission bi mën na ànd ak mu ne wa fil iktifa wa fil iktifa yi nekk na ci doyloo bi ñu saa ci jigéen ñi kese kese kese ci lay mën a demee màkk xam nga danaa ànd commission bi nekk ci kese kese rijaalin wala comité ba nekk góor yi kese kese ak lu mañ moyen wala ñu raxas jaxase góor ak jigéen saa du am ci dengi dengi dégg nga ndax jigéen ji bi dem màkka mbooloo muy àndal te rek mbooloom jigéen comme moom wala mbooloom góor yi kese wala day mën na mën nekk jigéen ak ay góor am nañ ci dengi dengi ci imam Malik lañ ko laajoon nag imam Malik lañ ko laajoon mu ne taxaruju ma'a rijaalin wa nisaayin loolu imam Malik jigéen bi dem màkk mën na génn ànd ay góor ak ay ay jigéen léegi nag mu nekk nag ñetti wax gars am ci wute nag ñi lam ci ne moom mooy góor yi kese ñi ne jigéen kese de ne ñi ne mën na ànd ak commission boo xam ne ñi góor la ñuy jigéen la sa taxa daal ansi mu bu raxal soloolu kër yi